les amis bonjour comment vous allez j'espère que vous allez yi tey waxtaan bi leen rek la Mister jabar nag balaa ñu si commencé da ñaan si fekkente nga seen bi te bi nag fi si dañu si ki nga xamante ni moom mooy Dieynaba Dieynaba nag ñëw si salle fekk mante tëdd si salle bi en tout cas xamal na mante na ko noppi rek léegi tey ma génn seen kër en tout cas Dieynaba na gëmul lu ko mante wax en tout cas Dieynaba xamal ko ne ko yow boo génnee kër gi fii nga ndim tànd bi laa fi indi laa fi laa fi organisé en tout cas Mante xamal ko ne ko yow mii yal na yàlla soppi waaye Mante nag la mu waxoon dafa mel a am ndax ki xamal ko ne ko yow mii loo may jour nga ñëw seet ma kaa nekkul danga ma jàppale woon rek ngi yàlla ñëw nga remercié na la jeexul en tout cas Isa xamal ko ne ko ba ma la gisee jour bu njëkk daa lu rëy lu ma yëg. mante nag xamal ko ko man tànk tànk man duguma si affaire caaxaan yi en tout cas Issa xamal ko ne ko man tànk caaxaan taxuma jóg damaa ñëw pour takk la pour su ma gisee jikko jikko ju ma gis si mi jikko ju baax ma takk la en tout cas manta nag bañut waxut waa waxut déet moom manta manta nag mi ngi ree waa Issa nag moom dafa mel ni moom goro goro Yacine la moom Issa ndax ndaxte moom Yacine mooy yar ki nga xamante ni moom mooy di Marème looloo tax Isa ñëw si moom ba yaayam génn àddina Yaasin mooy yar Mereem en tout cas Isa ñoon di kalaame ki nga xamante ni mooy Mereem na ko Mereem ba mu tukkee ba tey faalatu ko Isa nee na Mereem tukki na lu yàgg mais wax ootewut yónneewut en tout cas Isa nee na fekk fa mu nekk fa mu tukki fekk fa mu nekk moom Isa Isa nee na ba mu demee si Mereem Mereem si wax ak moom sax di ko faale di di jànj ki nga xamante ne mooy Isa Issa nag loolu métti ko bu ñëw di wax ak ki nga xamante ni moom na Yacine Yacine nag xamal ko ne danaa wax moom lépp lépp lum mu jàppoon ba tax mu doxalee nii su ma waxee moom nag incha allah dana dana ko bàyyi. na nag xamal ko ne ko divorce moom ëpp naa wax lii la leen tëggaloon bi di Jabar Góor gi di leen ñaan si fekkente ne gan ngeen si invité abonné si ñu ngi leen ñaan ngeen abonné te bu leen fàtte bés cloche notification bi jaa ngeen jëf yi.